arbitre Victor tey Bam Doy mi ci onzième combat am Jackson mi ngi ci douzième combat am. Bam Doy benn defet la ci carrière-am Gamou moo ko daan Jackson deux defet la ci carrière ñoom ñaar arbitre bi ngi xool. dañuy tase arbitre sifflé na Bam Doy day ñëw Jackson door na ko. Pape Ndoye Jackson dafa bëgg mu jóg oh mais Jackson daf ko ñeme waxoon naa la ko daf ko ñeme Jackson Pape Ndoye wax naa la ko Jackson daf ko ñeme Pape Ndoye Jackson dañuy tase dañuy tase waaw ah, dóor na ko ah way Jackson riposte na est-ce que gënu ko mobile daw na ko song Pape Ndoye Jackson. xale yi lu ne danañ ko fi def tey boo xoo combat métti la Jackson ñeme na Pape Ndoye ah Pape Ndoye Jackson jàppante nañu ah way booy bi na génn na génn na lu xew Pape Ndoye daw na génn lu xew dafa mel dafa jël coup psychologiquement psychologiquement mën na wàññi lu bëri ci moom waxoon naa la ko def ko ñeme. waa ji daf ko gën a gaaw mobilité bi la daf ko gën a gaaw daf ko gën a mobile. ah way Jackson mi saf na. non Jackson daaneel la. daf ko gën a mobile. Jackson daaneel la. Pape Ndoye Jackson. Pape Ndoye daa jël pour génn. Pape Ndoye Jackson. ndax Pape Ndoye li daa muy jël pour mooy du am du am garde bi. masse musculaire yi duñu benn waxoon naa ko Moustapha Gueye dañ leen ñu ngi xeex attention KO ah Jackson mi ah way Jackson daanu ah du benn du benn